Mor Diouf euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Mor euh, nga nekk secrétaire général bu syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal membre de l'intersyndicat des travailleurs du secteur primaire ngeen déposé benn préavis de grève lan moo ko waxal exactement. waaw wax nga dëgg man maay coordonnateur intersyndical du secteur primaire tey syndicat yi bokk ci secteur primaire bi secteur primaire nag buñ ko wax. mooy agriculture pêche ak élevage dañoo jël décision dem ministère de la fonction publique jébbal ko préavis de grève euh, loolu nag li ko waral lu yomb la mooy ni secteur primaire bi ginnaaw bi ñu daggee seen indemnité yi gouvernement du Sénégal bi mu ci delloo ginnaaw joxoon leen soixante pour cent ci indemnité bi mu daggoon daf cee toftaloon ni dañuy waxtaan ci kuréel gu ñuy wax ab comité boo xamante ni le directeur de la fonction publique muy monsieur Cissé moo ko jiital moo ko jiite ñu waroon waxtaan ci nu ñuy def xool ay pexe pour secteur primaire bi ñu teg fa lu ñuy wax fonds commun du secteur primaire muy xaalis boo xamante ni dañ ko war a def ci benn fonds euh, pour di leen ko séddale moo xam tous les trois mois la wala deux mois loolu yeggaguñ ci euh, loolu nag ñu ngi ko waroon def ci ci ab six mois ñëpp xam nañ ni at mi nag jeex na bi at mi jeexee nag te gis nañ ni délai bi weesu na euh, ñu ni loolu jaaduwul bett li nga xamante ni tamit moo gën a doy waar te jaaduwul mooy ki diriger ki jiite kuréel googu muy le directeur de la fonction publique ñeenti weer a ngi nii daanaka ñu topp ko pour que mu convoqué bi nga xamante ni moo ñu doon euh, permettre ñu mën a liggéey bi ñu sumboon ñu yeggali ko pour jébbal ko autorités yi nga xamante ni ñoo ci war a jël décision ndaxte ñun ñëpp ay ndaw yi buur dong lañ te moom it dañ ko dénk comme nit ñu jiitalee ñu nit waaye nag loolu mënuñu ko am waaye liñ ci gën a naqari ba tax tey ñu déposé préavis de grève bi mooy moom moomu di directeur de la fonction publique bu nu ko woowee du nu ko jot du nu wuyu maanaam donte téléphone am dina sonné bu nu ko envoyé message bu ñu tontu loolu nag ñu jàpp ni weeguwuñu faalewuñu te ñun nag ay kilifa lañ da wax jiital ay travailleurs yoo xamante ni ëpp nañ ay junni junni ñoo ñu jiital kon bu ñuy waxtaan ak suñu moroomu nawle war nañoo wekk waaye nag comme deful loolu ñu ne ñu jël li ñu yoon may moo tax tey ñu dem ministère de la fonction publique jël préavis bi déposé ko préavis boobu nag SATES ci la bokk SYNTAS ci la bokk euh, SYTRAPAS te ñooñu ñooy syndicat yi ëpp doole ci secteur primaire bi. Mhm. léegi préavis bi bu euh, fanweeri fan yi jeexe lan ngeen fas yéenee def. waaw am nañ yaakaar ni gouvernement du Sénégal euh, balaa fanweeri fan yi di jeex dinañ woote pour xool luy doon suñuy jàmbat ndaxte defe naa ni dañ leen dénk réew mi pour ñuy saytu. jafe-jafey askan wi jafe-jafey liggéeykat yi waaye nag ñaanuñu ko yàlla su fekkente ni yegg nañ ci càppaandaw ga te wootewul ñun li ñu yoon may dinañ ko def loolu nag dinañ ci xalaat daje ci en tant que leader waxtaan xool ban pexe lañu war a def pour que euh, lii ñu tàmbale woon muy liggéey bu am solo bi ñu yàggale ko loolu nag ñëpp xam nañ ni Euh, syndicaliste moom yoon may na ko mu grève mhm. maanaam banque loo xam ne du liggéey yoon it may na ko mu def sitim muy toogaayu ñaxtu yoon may na ko mu def doxu ñaxtu yoon may na ko yeneen i pexe pexe yooyu yëpp nag dinañ xalaat bi ci gën a yemb bi ci ëpp doole bi nga xamante ne buñ ko defee dana tax ñu dégguñu ba mën a toog seq ay waxtaan ndax liggéey bi peut mën a yegg Mhm. Euh, tey jii euh, euh, Mor Diouf boo ñu doon wax jafe-jafe liggéeykatu secteur primaire bi lan nga ñuy wax seeni jafe-jafe. waaw jafe-jafe yi bari na lool ndaxte ñëpp xam nañ ni agriculture yi pêche ak élevage muy secteur primaire bi amuñu ndàmpaayu dëkkuwaay muy indemnité de logement te loolu xam nañ ni jaaduwul ndaxte boo nekkee travailleur secteur primaire bi. fépp mën nañ la faa affecté te ñëpp xam nañ ni dëkkuwaay dafa cher location cher na lool rawatina fii ci Dakar kon ni ko suñuy moroomu nawle jàngalekat yi ak ñeneen ñi amee dañ ko war a am boo jëlee loolu te ko ne euh, ci travail yi nekk ci région intérieure yi yu mel ni Fatick Kaolack Ziguinchor am nañ jafe-jafe. ci wàllu fi ñuy liggéey ci wàllu jumtukaay yi yooyu yëpp am nañ ci ay ay jafe-jafe euh, contractuel yi tamit mm, seen jafe-jafe foo ko natt rek romb na ko ndaxte boo jëlee benn contractuel boo xamante ni def na fukki at ak juróom-ñett ñu koy signal ay contrat di ko renouveler te kenn mënu ko intégrer dans la fonction publique te nañ ni am na profil bi am na compétence yi eh, te yàgg na fi te ñu ngi jëli ñeneen di leen dugal bàyyi leen ñooñu bàyyi leen fi loolu du dëgg du yoon kon jafe-jafe yi daal bari na lool lool lool waaye li ali kallaj bi fi mu toll nii ba tax ñu déposé préavis bi mooy fonds commun yi ak indemnité de logement bi ak lu jëm ci mbirum contractuel yi defe naa ni mooy jafe-jafe yi gën a jàmp yi nga xamante ni buñ ci indi woon saafara am nañ yaakaar ni dal ak tekk tekkaaral dana am ci secteur primaire bi mhm. euh, Mor tey ji euh, comment dirais-je sax euh, ñan ñooy liggéeykatu secteur primaire si boppam ñan la exactement. waaw secteur primaire bi nag liggéeykat yi bari nañ fa ndaxte am na ñuy wax ingénieur ingénieur agriculture ak élevage am na ay agent technique am na ay ingénieur des travaux am na ay informaticien am na ay économiste am na ay planificateur am na ay juriste loolu nag mm, am na sax ay jàngalekat maanaam bépp xeetu euh, profil boo xamante ni mën na indi euh, ak yokkute ci secteur primaire boobu te état du Sénégal di ko soxla pour doxal politique yi nga xamante ni moom ñoo koy tënk ñoom ñoo koy xalaat ñoom ñoo koy jëmmal yooyu profit yëpp la dajale ci secteur primaire boobu ñu nekk nag ñoo xamante ni fore wuñ leen fële rek indi leen ñoo am xam-xam ñiy def concours ñiy def ay sélection état def sélection ci ay dossiers andi leen fa ñu am xarañteef am man-man am euh, xalaat tax ñu indi leen fa kon nag dañ leen a war a wér jox leen seen gëdd jox leen seen respect bi ñu yellool donc daal bu ko dee tënk euh, secteur primaire bépp xeetu xam-xam ma fa. Mhm. tey jii bu ngeen banquee seeni yoxo ban impact lay am exactement. dafa naa ni euh, secteur boo xamante ni moom dana contribuer euh, ci yokkute réew mi muy croissance bi muy PIB bi. quatorze pour cent ba quinze pour cent euh, téeméeri nit ñoo jël ñu yëngatu juróom-ñaar fukk foofu la ñuy yëngatoo ñooñu buñ bankee seen loxo defe naa ni euh, dinañ ko yëg looloo tax ñun xam nañ ni boo jëlee agriculture lépp lu jëm ci semence ñun ñoo koy certifié lu jëm ci certificat phytosanitaire ñun ñoo koy joxe lu jëm ci protection des végétaux ñun ñoo ko yor lu jëm ci représentation gouvernement ñoo ko yor boo demee pêche noonu la demee ñëpp xam nañ ni jën yi génn ak yi dugg lépp lu jëm ci saytu ko euh, travailleurs yi ñoo koy def boo demee élevage ndawal gi lépp lu jëm ci saytu ko ci abattoir yi lépp lu jëm tamit luy dugg ci frontières yi loolu yëpp ñoo ko yor vaccination agents yi ñoo ko yor kon li ma la limal noonu rek doy na pour nga xam ne bu nu banquee suñu loxo euh, nit ñi dañ ko yëg ndaxte deux mille vingt deux bu nu banquee suñu loxo euh, yàqu-yàqu yi buñ ko doon xayma dina nekk ci ay milliards loolu nag ñun yéene wuñ ko askan wi yéene wuñ ko réew mi moo tax ñu yëglu te suñu yëglu bi lu yomb saafara la ndax dañoo ne nañ ñu woore la ñu tàmbale woon ci liggéey ñu yeggale ko jébbal ko gouvernement pour ñu jël ay décision kon ñun neex nañoo waxtaanal euh, ñaanuñu yàlla nag yegg ci di banque suñuy loxo ba muy am impact ndaxte ay citoyen yu responsable te bëgguñu lépp luy gàllankoor réew mi te xam nañ nag buñ bankee suñu loxo dana am ay gàllankoor te li ci gën a doy waar mooy ñami dal seen kaw xëy na seen yoon nekku ci ndaxte Euh, ki yor usine am ñu banque suñ loxo mënta exporter kooku xëy na yoonam nekku ci waaye suñu xeex dana am lu ko yàqal kon ñu ngi tàllalaat loxo état du Sénégal pour ñu bañ a yegg foofu ndaxte ñun euh, gàllankoor euh, économie réew mi taxuñoo jug. kon Mor Diouf maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. man maa leen di jaajëfal. voilà Mor Diouf may fàttali ni yow yaay secrétaire général bu syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire jërëjëf Mor Diouf jërëjëf